waa wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa asxaabihi dawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara di leen dalal bu baax a baax itam ci ëtt bii ñu nekk tey muy ëttub soxna Maymunatul Kubra di ñaan sunu boroom dolli ko ngërëm ak leer di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi itam sëriñ Mountakha Mbacké di ci di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér noonu itam lañu koy ñaanalee Serigne Abou Mohamed ak mbooleem njabootug soxna may munatul kubra gépp euh, ginnaaw loolu ni ko sëriñ bi junjee léegi rek tey ñoo ngi nii ci bis bi nga xam ne mooy jeexantal ci waajtaay yi nga xam ne. moom la ñu doon def ngir di ko waajalee bis bii ñu nekk mu nekk mën nañoo wax ne ñoo ngi ci càppandoo la ginnaaw bi nga xamee ne nag jiital nañ ko ci doon def ay waxtaan yoo xam ne lépp mi ngi jëmoon ci di waajal màggal gi moo xam ci xam-xam la ak ci yeneen tey nag maa ngi feggoog ci sama wetu càmmooy Serigne Mbacke Abdourahman mu nekk koo xam ne gëstukat la boroom xam-xam la itam ku ñu xam la ci nangoo sonn ci xam-xam defe naa du jaadooti sax ñu koy présenté ndax mën nañoo wax ne ñëpp xam nañu ko aw turam àgg na fu ne tey nag ñu ànd ak moom wara a waxtaanee tomb bu ama am solo muy yittewoo gi nga xam ne cheikhul qadim radiallahu taala anhu yittewoo woon na ko ci di yar jigéen ñi mu nekk tomb bu ama am solo ndax day jaadu ñu fàttali ne jigéen mën nañoo wax nañ njëkki lislaam amul benn wàccuwaay boo xam ne amoon na ko ci société bi waaye day mel ne lislaam ñëw na joxaat ko cër joxaat ko wàccuwaayam ngir xamal nit ñi ne leen jigéen ci société bi la bokk te jëpp àq joo xam ne góor am na ko jigéen am na ko moo tax ba fu mu tuddee jigéen lu ci bare lu fu mu tuddee góor lu ci baree bari dana ca teg jigéen inna almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat walqaanitina walqaanitat niki noonu itamit ci aaya yu bëree bëri jigéen tamit nekk koo xam ne mën nañoo wax ne ci société bi kuñ war a jox cër la kuñ war a wax jox wàccuwaay la te loolu yonente bi salallahu alayhi wa sallam dañu koo jàngaloon waxoon ne xiyaarukum xiyaaruhum li nisaa'ihim ñi gën ci yéen mooy ñi nga xam ne ñoo gën ci seeni jigéen kon loolu rek ab ubbi la woon boo xam ne day wane jigéen wàccuwaay bi nga xam ne am na ko ci lislaam buñ duggee ci njàngaleem sëriñ bi tamit dana gën a leer kon sëriñ Mbàkke tafaddal bismillah aousu billah min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin mawlana muhammadin wa alihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ndokkeel ci bis bi ñu daje di fàttaliku ku baax ku bokk ci tànnee fi di soxna Maymunatul Kubra radiyallahu anha ñuy nuyoo beeg ziar bi yépp nañu di ko teg ci loxoy ki na ci bopp njaboot gi di sëriñ Abou Mouhamad di ñaan suñu borom gën koo sàmm gën koo dooleel di jaare ci moom di nuyu mbokk yi fi teew yëpp di di njabootu soxna si ci wàllu pas-pas ak deret ak ci wàll yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar sëriñ bi wax nga dëgg mbokk yi ñoo sàkk woon ñu waxtaan ci ni sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu yëttewoo woon yar jigéen muy tomb bu taxaw bu mat a fàttalee ndax niñ ko waxee lu jiwtu lislaam jigéen amutoon wàccuwaay ci société yu bari lislaam yu jox ko wàccuwaay bu rëy waaye jamono dox ba mel ne jaahiliya a fi nekkoon njëkk lislaam laa tàmbali del siwaat ci suufeel jigéen ak di ko teg nu mu doonul te niñ ko waxee borom bi waxoon ne ñoom ñoo góor ñi ñoo yam bu dee ci jaamu yàlla ñoo bokk fu ñu jógee ñoo bokk luñ leen doyee ci kaw suuf boo liggéey ñoo bokk fu ñu jëm ku ci def lu baax aljana nga jëm ku def leneen wala yàlla yërëmul yóbbu la feneen kon fàttali nit ñi taxawaay yooyu sëriñ bi amoon nga xam ne moom bi mu ñëwee bokk na ci li ku yàlla teel a xamal wàccuwaay wu jigéen ñi am ci biir aw xeet bàyyi xel baax na jigéen doonu ku tuuti ci lislaam wàccuwaay wu rëy rëy la yàlla jox jigéen ci biir lislaam bokk na ci ndami jigéen sax mën nañ koo wax ki njëkk a dugg ci lislaam ginnaaw ki ko yàlla wàcce woon ci moom jigéen la muy soxna Xadija kon moo jiitu ci doon ay jullit mën nañoo waxit ne alxuraanul karim mii nga xam ne tey mooy sunu làmp bi ñuy niital bu ci julliti jotee tey ginnaaw yàlla jigéen a ko dencoon yi jigéen moo ko aar ba jot muy soxna xaf sa doom Umar ibn Xattaab sangu bindéef yi di soxna yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi muy génn àdduna ci loxoy jigéen la génne àdduna soxna Aysa ko lew ba mu dog ñu denc ko ci biir néegam tey jii ku dem Madina siyaara yonentu salaam nekk soxna Aysa ko dugg kon yàgg nañu am ay cër xam nañ ci taarix it ne ci siira soxna suma Sumayya moom lañ njëkk a tuur deretam ngir lislaam kon cër yu rëy rëy am nañ ko yoo xam ne da doon dox ba agsi senegal maam yu baax yi fi nekkoon it ridwanullahi alayhim joxoon kuy yitte lool teeloon dégg diine ak wàccuwaay yum am ci jigéen ak fi ko tegoon ba tax ñoom it ñu teel ko bàyyi xel am nañ ci taarix ay maam yoo xam ne dañuy firndeel na jigéen ku am solo ci société soxna Mbàkke Awa Ñaŋ nga xam ne mooy taw maam Maharam kenn la ci ñooñu jàmbare woon lool ci alxuraan ak mën a jàngale sëriñ Moussa Ka nee na soxna sa fóore la te daa sol yére ya di tëralal dong ya mboolem téere ya loolu de waaye ne kon kàng fóore la moom dana jàngale alxuraan di jàngale xam-xam loolu lépp nag moo dox ba agsi ci Mame Asta Waalo di sëtam agsi ci soxna Jaaratullah mi nga xam ne mooy wajur Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim waaye kon buumu mbaax gu jokkaloo la woon te lislaam it bàyyi xel jigéen lool yonent ci yàlla Muhammad alayhi salaam bokk na ci ay jàngaleem lu waxoon ne ku jox jigéen cëram ngir jox jigéen cëram bi yàlla di tudd ne ay doom ay pexe du ko maye ngóora du ko maye waaye coobare suñ boroom la daa waxoon ne yahabu liman yashaau inaatha wa yahabu liman yashaau dukur yàlla ci coobareem lay maye ay nit ay jigéen may ay nit ku ko soob ay góor am ñoo xam ne ñëpp leen di may am ñu xañ lépp jigéen la njëkk a tudd kon am na lu muy tekki ci jiitalu ko suñu borom subhaana ci lu lu mbir mu jiital mu ne yittewoo jigéen ci yar ko jàngal ko mën naa yóbbu góor aljanna yonent yàlla muhammad alayhi salaam nee na gone yu jigéen yii ku ci yàlla wërsëgal doom nga toppatoo ko doyataloo ko jëloo góor ñi ñu gënal la jigéen ñi soo faatoo yàlla tabal aljanna bokk na ci li ñu garanteel nit bu la yàlla dénkee doom ju jigéen nga jox ko ak xam yar ko ni nga ko war a yore yamale ko góor ñi ci taxawaay soo faatoo borom bi ci yërmandeem dana la tàbbal aljanna dana taxit dëkk ak yërmande salaam waxoon na ne ku yàlla dénk ñaari gone yu jigéen nga toppatoo li muñ màgg baax maa yow bu àjjanaa nii ak la ñaari baaraamam ñooy bokk dugg àjjana kon fonk jigéen ci taxawu ko dana tax boo liggéey nga dëkk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir aljanna dana musle ci sawara soxna ay nee na daa am benn soxna bu sa ñëw ci moom ànd ak doomam jigéen soxna ay nee na ma xool xool gisuma lenn lu ma ko jox du benn doomu tàndarma fekk ñaari gone jigéen la am la àndal yow ko joxee doomu tàndarma bi mu génn xar ko ñaari xar jox ñaari gone yi ku ne benn ñu lekk moom lekkul ci lekku ca nee na yonent moom ay salaam ñëw ma nettali ko ne moom day lëkku ci sax da koo séddalee ay goneem ca yàlla nattoo gone yu jigéen yi ñooy doon sa bu yomal xaam ba doo kon am ay doom yu jigéen taxawu leen dana musal nit ci tàbbi sawara dana tax dëkk yonent bi alayhi ci biir aljanna kon aw yiwu neen la bi ci des it liñ leen di doy dafa am solo ñoom ñoo yor kër bu kër jagee rek jigéen a jag moo tax jigéen ja koy jagal nag kon laaj na ñu toppatoo ko borom bi nee na wa minaayatihi euh, wa minaayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha li tas taskunu ilayha ngir mën a am mooy jigéen ñi dañ koy waajal ba mu mën a yore kër mën a saytu kër mën a saytu ñu ne ci biir kër kon ñu jàng ci loolu ne taxawu jigéen mooy tax kër jag kon taxawu ko lu am solo la société bu ngeen dégg fii mu rëng-rëngi nit ñi jaxasoo gone yi jaaruñ yoon yaay jag mu fa amul waaye saa yaay jagee rek jàppal ne société man naa jag kon yittewoo jigéen ñi am na solo lool boroom xam-xam dañuy wax sax ne bokk na ci li ñuy xamee ne jigéen ji barkeel na bu sëy see mu taawloo jigéen taawloo jigéen màndargam jigéen ju barkeel la ñu ngi ko ballaloo ci aaya jooju ne yàlla bi muy lim mooy maye jigéen la njëkk a tudd kon ku njëkk jur jigéen rek màndargam barkeel la te loolu nag buñ ko dee waxtaanee fii mën naa neex a dégg maam yu baax yi ñu xam ne ci ci ñoom te jigéen lañ taawloo maam Maharam Mbàkke taawam jigéen la maam Balla Aysa ab jigéen la maam Mor Anta Sali ab taawam jigéen la Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim ak Mamoor Jaara seeni taw jigéen la sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Falilou sëriñ Basiru seen taw jigéen la kon loolu mën si na koo dégg bu leer day wane ne kon ñu am solo lañ ci biir xeet wi ñu mat a bàyyi xel lañ bi ci des dañ leen a soxla ci biir kër yi am na barab yoo xam ne ñoom dong ñoo fay teew te lañ leen fay doyee buñ jàngalul jigéen ji yar ko du ko mën a taxawee xam nañ ne ci lislaam dañoo bëgg doom bu juddoo ñu nodd ca nopp ba li ji nodd ak li xam gi ñuy def bu ñu koy tudd loolu ñaareelu étape la waaye li jiitu woon mooy lislaam lim santaane bu doom juddoo rek nañ nodd ca nopp ba ji loolu fi doom di juddoo ñu fay nekk ay jigéen ay saf saf ñoo fay nekk ay rawlikat li baaxu am su amee ñoo ñooñu doom ñoo fay nekk buñ leen yaroon jàngal leen nag fu doom rote rek ñu yëkkati kaddu yàlla doom jooju su màggee incha allah ku gëm yàlla te wéetal ko li doon waaye maal asaf doom dana judd ba bis bi del si ñuy door a di la dégg na fi lu nekk kaddu gu ne mën na ci diggante waaye kon buñ yaroon jigéen yi jàngal leen ba ñi ne ci kër docteur yi sax saa bu ci jigéen muccee kaddu gi muy njëkk a dégg nodd lay doon ak liqaam subaa bu màggee dana doon ko am solo ku ñu am yaakaar ci moom loolu taxee nit mag ñu baax ñëpp yàgg ñaan ay dëkkandoo yoo xam ne yu baax la ñu doon dëkkandoo yoo xam ne yu baax lañu ñu doon ndax njaboot gu baax way jur baax koy jur njaboot gu baax mu ngi soqi koo ci way jur bu baax moo tax ngeen dégg sunu sëriñ Mawlana di wax ne habli bi jaahihi waludan munjiba talidu aarifan aliya martaba wal tajalanha ya ilahi saaliha talidu may yaamalu baadi saaliha ngeen dëkk mu waxit wa zawjatan saalihatan tu'inu ala tuqa wal birri yaa mu'inu lépp day wane jigéen ju mel ni war a mel ci moom lañuy séenoo njaboot goo xam ne liñ yaakaar ci diine yaakaar ko ci àdduna yaakaar ko ci yàlla ci moom lay bàyyi ko kon ñu mat a bàyyi xel lañ ñu mat a lañ su ko defee nag loolu moo tax yar ko dafa am fu muy tàmbalee te danañ ci ñëw ni ko sëriñ bàyyee xel jigéen dañ koy toppatoo wutal ko ay way jur yu baax yar ko yar bu rafet tàggat ko ci lim doon mu doon jigéen su màggee fu mu dem mat falam lam doon loolu bu ci mag dara manqué rek li ci jiitu mooy dañ koy tànnal waajur ndax waajur day topp mayen day jeexital doomu aadama ji melut neen ni mel mooy li ko wër ni mel borom bi daa wax ne wallahu axrajakum min butuuni ummahatikum laa taalamuuna shay'a waaye nag wa jaal lakum samaa wala busaara wala afidata laalakum tashkurun kon ndekete nit ki li muy gis di ko dégg mooy dugg ci xolam boo amee way jur yoo xam ne mbaax nga gis ci ñoom mbaax rek ngay dégg ci ñoom bu doom màggee day baax kon loolu moo tax ñuy tànn way jur bu baax utal ko tur bu baax ndax aw tur ne jeexital Saïd Saïd ibnul Musayyib amoon na maam joo xam ne Hazna la tudd Hazna dafa tuub ñëw ci yéen salaam mu laaj ko noo tudd mu ne ko Hazna mu ne ko tey ngaa tudd Sahla Hazna mooy lu jafe mooy lu ñagas xam naa góor gi ak naare jàpp ko mu ne man turu mu sama bàyyi tudde woon du ko sot Saïd nee na Hazna googu daa ci ñoom. lu ci waaye baax baax am naqari deret ak ñagas boo xam ne nee nañ ci tur lañ leen topp lañ jàpp kon aw tur bu baax day jeexital ci njaboot loolu it bokk na ci liñ amee doom yi war leen a tudde tur yu baax ba noppi nag yar leen yi koy baax yi yooyu nag la Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim teel a xam bi mu dikkee woote woote mu baax woote mu njub bi mu wootee woote yàlla diine la indi diine nag day bàyyi xel góor bàyyi xel jigéen moo tax woote bi ñëwul yamale ko ci góor ñi waaye da cee woo góor ñi woo ci jigéen taxawaay yi mu doon taxaw ngir penc mi jag ci góor ñi ak jigéen lépp la ko la ko la ko jaaree dafay fekkoon lu wuuteeg loolu lim fekkoon te taarix yàgg ko wax mooy jigéen amut solo njàngum jigéen amut solo wooye fal ko lool jàpp ne mënut dara te bàyyiwuñ xel ne li jag ci penc mi jigéen na ci ginnaaw abul ala almaari bu yàggoon la waxoon ne fa salaatul fataati bilhamdi wal ixlaasi tujzi an yunusin wa baraa waxoon daa njëkk wax ne allimuhunna alxasla wa nasja wa radna wa bàyyi te ngeen bàyyi al kitaabu wal qiraa jigéen ñi daal na leen jàngal rabbu ak korose ñaw waaye bind ak jàng moom du seen mbir soxlawuñ daan ne julli bu jigéen daal bu mokkalee fatiha mokkal suuratu ixlaas doy na walis muy jàng saa yu guddi yi fa salaatul fataati bil hamdi wal ixlaasi tujzi an yunusin baraa la loo xoon loolu ab taxawaay bu fi yàgg la ñu jàppoon ne jigéen amul solo te lislaam xam ne ko am solo la ndax ni ma wax léegi taxawaay yi amoon ci lislaam sëriñ bi ñëw moom jël na lislaam jàppe woon jigéen xam ne élément bu baax la boo xam ne boo ko jagalee rek jagal penc bi li ëpp ci li yàqu ci jigéen ñi lay tàmbalee ku bëgg a defar ab dëkk ku bëgg a defar aw xeet na defar seeni jigéen buñ baaxee rek ñëpp baax li xakim bi waxoon ne al ummu madrasatun wax ju dëgg la ndey daara la yoo xam ne mbooloo fay jóge ñu soqi koo ci moom ñëpp dañuy nàmp ci moom loola day jeexital ci ñoom sëriñ bi loolu da ko teel a dégg lool ba mu amee ndigalul rabbi asaabaka bil himma himma joojee yamalewu koon ci ay góor ni mu ci yare góor ñi noonu la ci yare jigéen samp ay daara nañ ko xay moom tarbiya am sëriñ bi ñetti xeeti daara moo fi amoon daara ju jàngale alquranul karim daara yuy jàngale xam-xame sharia daara yuy jàngale tarbiya dafa ruux tarqiya ruux ñetti daara yépp nag ni mu amee woon dongo yu góor noonu la doon amee dongo yu jigéen te loolu saabiqa la boo xam ne njëkk sëriñ bi xamuñ ko woon yóbbu daa yóbbu jigéen daara sëriñ bi lañ ko xamee bu njëkkoon jigéen bu góorgóorlu ba jàng yi da ngaa ci kërub daara di fortal ba far jàng doontoon sax luñ jublu waaye jël gone yóbbu ca daara ja ñu doon ay dongo yu jigéen wutal leen ab sëriñ bu leen di jàngal sëriñ boo ko fi indi kon teel naa jàngale ne. ni ñu war a yare góor noonu la ñu war a yee jigéen loolu ko may njaboot goo xam ne ñu wattu alxuraan karim bind ay kaamil jàng xam-xamu sharia taalif ay téere soxna may moo na kubra mi ñuy daje ci bisam royukaay la misaal la ci loolu ñu wax lépp li ñuy wax lépp misaal la ci jigéen joo xam ne sëriñ bi ni mu bëggoon ñu mel ni ndax sëriñ Tuubaa dafa ñëw indi risaalab defar ak jagal ak yéwénal lim fekkoon lépp lu jag mu téye ko li manqué woon mu mottali ko li ci raxoon te bokku ci mu génne ko ba sëriñ Moussa Ka di melal liggéey bi mu liggéey ci jigéen ñi am na bayitam woo xam ne buñ ko doon settantal danañ ci dégg lu bari nee na dafa ñëw soppi jigéen ñi muslimaat ñuy dawee góor nay muhsinaat rek ci takkaay yi seen i baat di muuru dëddu xarno bi loolu mooy meññatum liggéey bi doon sëriñ bi doon liggéey ci jigéen ñi soppi leen ay muslimaat mooy lan ñu xam ne ay jullit lañ andiwuñ leen fi ngeen jaamu aada andiwuñ leen fi ngeen jaamu ay xërëm te lu yomb rek la jigéen jaamu aada ku yomb la ndax ñu muy jaxasool ñëpp say maam say bàjjen nii lañ daan daf kaay defee nii inna wajadna abana la umma loolu aada ju yàgg la sëriñ bi ñëw nag sempi loola ndax daa bokkoon ci mission sëriñ day yar nit ci diine waaye tàggale la ak aada kama yurabbihi bi tarki la aada ñu bari ci jigéen ñi nag ay aada la ñuy dund buñ leen yar yor diine Sëriñ Tuubaa ñëw jële fi loolu ba soppi leen ñu nekk ay muslimaat jébbal seen bopp yàlla nekk ay muhsinaat maanaam nga xam ne ak ak suufiyanke bu kawe la ñuy dund dégg nga mu ci teg rek ci takkaay yi seen i baat di muuru daddu xarnu bi kon mën na jàpp bi sëriñ bi ñëwee lim fekk jigéen ñi. mel ni te lislaam gërëmu ko jële woon na ko ci seen biir kon bu fi del siwaatee rek nit ñi war nañoo laaj seen bopp lan moo ko fi delloo si bare na yu del siwaat yooyu ñuy wax yoo xam ne dafa del siwaat sëriñ bi ñëw indi yar boo xam ne daa matale góor ñi ak jigéen ñi lañ yóbbu ci daara ji jàng alxuraanul karim bañ mokkal ko di bind ay kaamil ni góor ñi binde lu kenn mës sa jàppal mën na nekk gis ngeen sëriñ bu newee gànnaar sëriñ Musaa Ka nettali ko ne Cheikh Sidiye da ko doon wan ay goneem yu jigéen ñi wattu alxuraan di ko ko aajar mu mel ne mbir mu jafe la mbir la moo xam ne yombul moo tax kere ba soxamee mën a indee kaamil ba sëriñ bëgg ci lool nettali xissa boobu waaye boole ci loo xam ne moom doom doomi Cheikh Sidiye mënuñ ko woon mën nañu jàng waaye mënuñu liggéeyu jigéen moom nag dañ koo jàngal yar ko jàngal ko liggéeyu jigéen tarbiya ko tarxiya ko kon liggéey bi sëriñ bi liggéey ci jigéen ñi mooy daa fekk ñu jaamu mu jële leen ci daa fekk ñu jàppe leen ñu réer waruñoo jàng waruñu def dara mu jële leen ci def leen ay boromi xam-xam ñu jàng alxuraan samp ay daara di jàngale bari tey ay nit ñoo xam ne ci séeri daara la ñu génne yar leen yarub diine boo xam ne lu lëj ci diine mën nañ koo lijjanti boo doon tànn ay exemple ci ñoom da nga xam ne sëriñ bi fonkoon na njàngum diini boo tàmbalee ci ummahatul muridin nga xam ne sëriñ bi ku mës a ñëw ci ronam dana def yitteem àggale seen njàng lu kenn mës sa dëkk ci nit ku ñëw ci kër gi liggéeyal si yàlla ñu yóbbu la ca daara ngir nga àggale sa njàng loolu sëñ Tuubaa def na ko soxna Fatou Diop booy juru sëñ Mourtada Mbacke fii ci ndaam la àggale alxuraanam ba bind fa juróomi kaamil xat katabat bi yadiha masaxifan tuaddu tuaddu xamsatan loolu la sëriñ ma Lamine Diop Dagana bind waaye gis nañ ci taarix ñu wax ne soxna amintaloo bi muy génn àdduna mi ngi doon jàng risalatu ibn yi ba benn bunt moo ko ci dese woon nga xam ne kon bu ñëwee ci kër gi sëriñ bi taxawut daa wéy teen jàngal am na ay lettre yoo xam ne bi mu nekkee ci géej gi la ko bind maam Cerno bokk na ci la mu ko digal di ko soññ jàng ak jàngale waaye ne ko digalal jigéen ñi nañu jàng tey julli te toog ci seen kër yi nga xam ne ba mu nekkee ci tukki ba njàngum jigéen mi ngi ko ñor ak seenu yaram kon yàgg naa dafa yitte ci bëgg jigéen ñi mel ni ñu war a mel ndax jigéen su melee ni war a mel rek jàppal ne société bi daal di jag loolu it yàlla defal na ko ci ndam mu yar ay nit ñoo xam ne ñëpp mbaax la ñu roy soxna Aminata Lo ñu wax noonu ci risaala bi. soxna Awa Boussa xasida gi ñuy wax Matlabul Fawzayni Matlabu Shifa yi mag ñi wax nañ ne bi ko sëriñ bi taalif loolu mu wax ci njalbeen ji moo ne woon ci moom wéradi wéradi gu métti ba mënta jóg di jóg daa woo soxna Awa imlaa ko ko dicté ko mu bind ko mu noppi jàng ko tifle ko ba mu daal di wér kon ku amoon néew ci xam-xam la nga xam ne kon doon nañ jàppale sëriñ bi ci liggéey bi mu doon liggéey yàlla noonu nga koy toppee soxna Faati Jaw doomam moo ko jàngal alxuraan yar ko tarbiye ko tarbiye bu metti ba mu nekk ab zaahida bu jéggi dayoo mujj mu sampal ko daara di yebal jigéen ñi dem coom mu jàngal ak taalibe soxna Maymuna mii kenn la ci taalibe yi soxna Faati Jaw ginnaaw boo ko sëriñ bi jàngale yar ko bi mu alxuraan ci sëñ daam ba ko jàng liggéeyu kër lañ ko yabal soxna Faati Jaw mu jàng ñu tarbiye ko kon loolu sëriñ bi liggéeyoon liggéey moo jur ay jigéen ñoo xam ne foo leen gise gis baax gis ak njub fonk diine am diine bari sax bu ñuy dox dañuy muuru duñ tiitaru ay takkaay doo leen fekk ñuy xantewu ay yére doo leen fekk ci ay ndaje mbooloo ay jàngkati diine la seen yitte mooy xam-xam soxna May booy jàng taarix wala wan la xeeti bataaxel yi mu doon kilifa yi da nga yëg ni ku am ju kawe la ay niti xam-xam niti daara dong loolu tax a sol waaye ni muy waxante ñoom. ci làmm ñu arab bu rafet ci nga xam ne kii boroom cër bu rëy la ci xam-xam te loolu sëriñ bee ko def ci ñoom loolu nag moo yoon wi ñooñu la sëñ bi sampoon nag ñu nekk ay juum kër gu ne ñu yóbbu fa jigéen ñi mel na ñoom nga xam ne li gën mooy loolu fexe ba jigéen ñi ay jigéen di leen jàngal kon bi mu nappee ci ñooñu nag la daara jigéen tàmbalee tasaaroo ñu samp ay daara gone yi fay ñëw boo dëkkee dañ la jàngal alxuraan jàngal la fiqhu nisaa ba li aju sa dund dootu ci laajte dara jàngal la liggéeyu kër jàngal la nu ñuy nekkee ci kër ndax jigéen ndamam mooy day sëy di jàmmu yàlla ci seew ñu tàngat la ci ba nga xam ne li mag ñi xamoon bu njëkk mooy gone goo xam ne ak saabajeen la du tële dara du umbule dara ndax dañ koy jàngal yar yeewu mooy tax kër gu mu dem mën a seere kër mën a seere kër loolu la fi sëriñ bi indi woon ci jigéen kon defar leen bañ jàpp nekk dëgg-dëgg ay jullit nekk ay muhsinaat li ñuy am ci ay takkaay ñu di ko liggéeyal yàlla dëgg la jigéen dana wut ay takkaay waaye du takkaay yu ñuy takk nag di ko tiitaloo takkaay yi nga xam ñoom doon nañ ko am dañuy wax ne dañ koy faje gàcce jàng nañ ci taarix ba tey soxna soo xam ne day yëg ne kilifaam am na aajo mu dox ci suuf jël ay takkaayam jox ko ne ko faje ko aju wala ñu lijjanti doomam war caa joxe dara mu jël ay takkaayam joxe nay joxe leen ko te bu kenn yëg ne maa ko joxe kon ñooñu tëkkuñu ay takkaay ngir wane wu koo ci gisit bi leen yàlla bindee indi leen àdduna ñu defar leen nañ leen defaree seen dund gépp ñu ngi ko jeexal ci islaax ak jubbante koo ci dem tey bàyyi na njaboot goo xam ne mbaax lañ leen xame jikko yu rafet lañ leen xamee soxna may moon a mii tax ñu daje tey li ñuy wax lépp mën na ci joxe misaal nit gënu ko ay way jur ci mbaax fi mu bokk nga xam ne kërug mbaax la kërug diine la këru xam-xam la waaye nag doyloo wut juddu ba ndax yooyu ak mbaax la waaye dañ koy fàggu dal ko am nit mën naa baax ay way jur lool te moom nag mel neneen waaye ñu yar ko ci mbaax googu mu màgg mel ni ay waajuram mbaa mu raw leen yàlla dénk ko njaboot goo xam ne bu ñuy lim ñu baax ñi tànnee fi boole leen di doo leen dégg ci lu ñu war a ci gis looy bokk na ci li ñuy tagg jigéen mu bàyyi fi njaboot goo xam ne kenn du leen dégg ci lu jaaduwul yooyu nit ñi war nañ ko bàyyi xel ne ci barab di fa yëngu jóge fa bàyyi fa loo xam ne ku leen gis daf sa gémmiñ kenn du bëgg a jaxasoo ñoom ndax seen jikkoo loolu amul solo may Maymuna nag ci fi bàyyikoo ci fiñ ko jaarale ak lim dund lépp joxe na misaal ci ne mu ngi bokk ci tànneefi jigéen ñi buñ lay nettali ñi yaroo boo daje woon ak kenn ci ñi yaroo ci këram mu lay wax ni mu doon bàyyee xel diine di ko bàyyee xel ak taaliba ci njaboot bi di ko toppatoo nit ñi da ngay xam ne kii xamoon na mas masuuliya bi nekk ci loosam kum noppi ci yaw bu yóbbu la këriñ boo fa demee royukaay ngay doon te loolu moo doon yar bi defar ay nit bañ jag yóbbu leen ci barab ñoom ñu wuut la fa la nga doon la nga defoon ci ñoom ñu def ko ci ñeneen li yàq àdduna mooy bi loolu daggeel nag waaye li tàmbalee ci sëriñ bi ba agsi ci kilifa yooyu jamono ju nekk amoon na ay daara yu xam-xam amoon na ay daara jigéen yoo xam ne ay jàngale di yare waaye bi jamono lëjee nag rax bi dugg ci ci la yu bari xew yoo xam ne kenn xamul lu mu doon waaye faaw ñu bàyyi xel kon ne jigéen buñ fekkee dañ la woon tey danga am daara joo xam ne dañoo soxla dong bu fa yóbbu ñu ne la kenn mën a dem nga yor bu góor ak ku jigéen yóbbul jigéen ji jàngal jigéen moo gën a yey jàngal góor ndax bu jigéen jàngee defar ay góor <coughs> góor nag mën naa jàng ba wànnu lef te du soppi kenn jigéen ju jàng nag fu dugg soppi ko su amee boroom kër bu jaar yoon sax dana ko wëlbati bari na ci taarix ay góor ñoo xam ne fu ñu àgg ci mbaax jigéen a tax jàmbar ju jàmbaar na ci seen ginnaaw di la kañ di la bàkk di la joyanti saa boo naree dellu ginnaaw ñu dëgëral la mawlaan euh, sayyidna Muhammad alayhi salaatu wasalaam soxna Xadija amoon na taxawaay yore ci moom doy na ko ndam bi ko jibril feeñoo xamut lu mu gis ba jibril demee dafa daw ñëw ci soxna Aysa sang leen ma muur leen ma jomme naa jaaxle naa soxna si xamut lu xew de waaye nit ku mat lim doon day taxaw taxawaayam comme yar nañ ko yee ko da ko da defal da ko yow lu baax rek ngay def du am mukk safal ba xelam dal mu ànd ak moom yóbbu ko ca naw Nawfal ne ko nettalil sawaay li nga gis ba mu ko nettalee Waraqa moo ne ko mbóot mu daan dikkal Moussa ñoom moo la dikkal yow yàllaa la tànn def la bu yonent soxna Xadija moo tax ñu xam ne bu yonent la loolu royu koy la ci jigéen bu matee lim doon mën naa taxaw borom kër bu mu àgg fu mënta àgg moo tax it alayhi salaatu wasalaam Mustafa te yonent bi jëf ju baax du sànku mbokk yi ku góor góorgóorlu ci lu baax du sànku mukk soxna Xadija jóge na fi lu yàgg yonent bi xelam dem ci moom amoon na magam ju tudd xaala dañoo nuroo woon kàddu fukk yu islaam ma si dëgg kàddoom rek nit ñi yëg ne sopp ko na xelam dem ci Xadija ba benn bi soxna ay sa xaw am ca liy jàpp jigéen jàpp ko mu ne ko màggatug naar goo xam ne yàlla jële na ko bu yàgg jox la lu ko gën keroog sangu bi nekk na tàng ne ko déedéet te yàlla joxuma lu ko gën moo ma gëm ba ma ñëpp weddee moom ma doon dimbale ba ma ñëpp seetaanee te moom la amale doom àggoon na ci mosaana soppi cëram ci këram day wax ne nañ yàkkal xarit Aysa xarit Xadija ndax rek fàttaliku lu baax li mu doon def loolu moo tax jigéen fu mu nekk na fa baax rek baax du sangu moo tax tey Xadija sangu mooy sangub jigéen ñi fu ñuy tudd ñu baax ci lañuy la ñuy dellu waaye jigéen it noonu la soxna Aysa mii tey lu ko may tey ñu denc ko ci biir kër yooyu ñu denc yëpp alayhi salaam ci biir néegam waaye mu jàngale fa it loo xam ne mat naa roy baax soxna Aysa biñ dencee yëpp alayhi salaam ci biir néeg bi daa wéy dëkk ci néeg bi bu doon tey kuñ denc néeg nga ne man duma dëkk ci armeel ci néeg bi la dëkk moo yëpp alayhi salaam Abubakar faatu ñaanoon nañ ko fa denc ñu dugal ko ci néeg ba mu des benn place soxna Aysut ne bopp la ko fi bàyyi biñ demee Sidna Omar mu ñaan ko ne ko dama bëgg suma faatoo ñu denc ma ci wetu yonent yàlla Muhammad ak Sidna si def ko baax daal di iithaar ne kon nañ ko denc fii te suma su ma faatoo man yóbbu ci armeel moo tax ñu denc Omar ñoom ñett ñoo fa tëdd waaye li yéeme foofu mooy bi ñu fa dencee Omar soxna Aysut daa wax ne dootul summi ci biir nee bi ndax ab jaamur dafay nekk léegi intu yàlla Muhammad mooy borom këram sëñ naa summi ko ci kanamam Abubakar mooy bàyyam mën naa summi ci kanamam waaye Omar jaamur la ci moom jigéen ñoon ñooñu nag la Sëriñ Tuubaa delloo si waatoon jamono defar fi ay nit ñu baax ñoo xam ne gis nga waa këram ñi ahlu barzaax la ñu doon tudde looy gis ñoom lu jullit ay atam néew néew buñ la koy wan ak màggat lañ lay wan ndax suluk bu rafet ak melokaan wu mat kenn du gis ñu la war gis kenn du dégg ñu la war a dégg doo leen fekk foo leen war fekk koo ci xam mi ngi jàng alxuraan mi ngi jàng xam-xam mboolem yaroo ci keppaaram ñooñu ma la misaal léegi jàng ci korom bokk na ci ñenn ñi bokkoo ci këram soxna Aminta Amar mi nga xam ne da doon jàngale téere xam-xam wax nañu sëñ Moustapha Sy jàngatu xasida jàng na ci soxna Aminta Amar moom Masaalikul Jinaan Sëñ Tuubaa ko ko jàngal bari na ay kilifa tey ci réew mi ñoo xam ne dañ daan dem ci soxna si di fa jàng tere boobu docteur Ahmad Lo mi ngeen di xam nee na soxna Ami dama toppal na ko Masaalikul Jinaan nga xam ne kon ñi sëriñ bi doon yar nit yi xam-xam la doon formé man xamoon naa soxna si ba ma ne ci daara ji àjjuma jot dañu daan yebal ñu fay dem di jàng kaamil mu fonk alxuraan lool dara nga junne ma la koy defal waaye booba gone yu jigéen ñi ci kër gi jas bu ma waxee bu muqaddama téere yëpp dañ koy tari jàng xam-xam di leen soññ ci diine yi foo leen fekk it ak seen muuraay nga xam ne ñooñu la sëñ defaroon ay nit ñoo xam daal li ñuy xëntewoo di ko tiitaroo mooy bëgg a baax bëgg a gën bëgg it bu ëllëgee seen njaboot gën doo ci gis kenn ñu lay wan dara ci moom nga gis ay takkaay wala ay yéer yu rafet yi muy sol lu ñu gis daal ku muur yorub kaamil moo waral nag boo ëllëgee buñ lay fàttaliku lépp rafet soxna may mun a tey buñ koy fàttaliku lu ñuy wax moom de ay njaboot la fi bàyyi yoo xam ne ñëpp ay tànneef kenn koo ci fekk fa xam ne ku baax la xam ne ku gën la ñeneen ñi dëkk ak ñoom dañ leen di roy ci mbaax dañ leen roy ci góorgóorlu ci sàmm seen ngor sàmm seen diini lan la fi bàyyi kaamilub alxuraan boo xam ne dañ koy barkeeloo di ci wane it taxawaayam ci diini lu fi bàyyi ay téere ñu taalif ci arab ak wolof di ci jàngale baax ak i jikko yu rafet waaye di ci xamle kan mooy Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ma ne Maalif Baay ku ne ci nit ñi nag war ngaa bàyyi xel yow mm-hmm. boo fi jóge woon loo fi bàyyi ndax nag li xakim ba waxoon war na bàyyi xel de mm-hmm. wa innama al maru xadithun baadahu fa kun xadithan xasan li man waa doomu aadama ji noo mën a toll cër ba mën a am ci àdduna ci waxtaan dañuy mujj soxna May ñi koy waxtaane lii dong la ñuy wax mm-hmm. kaamilam ba taalifam ya njabootam nga ñam yar ku fi bàyyi leneen it nit ñi wax ko buñ ko waxut ci kaw ngir rus ñenn yi danañ ko wax ci suuf mm-hmm. kon ku góor góorgóorlu bàyyi fi lu jàpp mën naa nekk nag ndax sëriñ bi rëdd na ko indi na yoonu mbaax wi mu teg kon jàpp naa ne liñ war a tiitaroo ñoom mooy rawatina suñu jigéen mooy ñoo ñooy seen royukaay dara dooy war lool nag buñ demee ba jamono ñoo xam ne ñoo ñoo war nekk seen royukaay dañ lay tudd ay waykat ay fecckat ay mbëri làmmoon na ñooy seeni xarit lu ñaawteef la nit koo xam ne yow ki lay tudd di ko tudd walla ñi ñi nga bokkal ñëpp làmb bi diine ñoo ko ub fu mbaax ma sa bu buñ dikkee ub làmbu ja yow loolu kenn xamul ci nañ la xamee daal mooy <clears throat> ay takkaay ay yére yu rafet nii laa toll nii la day mbokk yi ñu bàyyi xel ne alal yi àdduna ak matériel lu mu bari bari lu mu cher cher nit a ngi koo xam ne faatu moo ko te tabbi sawara lam ci yor yoroo ci genn wàll kon du nattukaay yu baax du nattukaay yu gën donte ñu bari ci noonu nag alal la ñu natte nit ñi lu mu am moo tax bari na bàyyi xel mag ñi buñ doon may seen doom dañuy gëstu fuñ ko may li alayhi salaam waxoon xool ñu xool ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa sawijo léegi nag nit ñi laajuñ loolu mas sama nekk ci benn dëkk boo xam ne bu fa nit di ngoro benn baat lañ koy laaj lu muy liggéeyee bu ne directeur société lañu ne may leen ko ku baax la loolu it nag lu tàmbale yaatu la nattukaayu am na alal alal réglé gu dara taxut a gën kenn doonte mën nañ si jaar baax waaye nag na fekk laltaay ji war a jiitu lal daf ñuy soxla may ñoom daf feeñ fi ñu war a feeñee jaar fi ñu war a jaar ba mel nañu war a mel moo taxit liñ bàyyi lépp lu jag lay doon yàlla yàlla gën leen a barkeel gën leen a ñu xam ne nag ñooñ ñooy royukaay maanaam tey ku nekk am murit di jigéen képp koy teg ci sa kanam ku dul ñu mel ne soxna may yaa ngi nax sa bopp ñoom nag kon war ngaa xool sa bopp xool leen bi si xew yi am lu ñu doon def mbokk yi rafetul dara nit koo xam ne su wéradee mbaa mu génn àdduna ñuy nëpp ay photoom duñ bëgg nit gisati ko ndax nu mu ca mel te waru ne mel daan sol yére yoo xam ne buñ koy miraas duñ bëgg yére yi nit ñi gis ko ndax ñàkk jan fii mat naa moytu de lépp looy nëbb xam ne bu ëllëgee bëggoo ko yóbbale bàmmeel nit warta dugg ak moom di ko dund ci këram lépp loo xam ne it bu ëllëgee boo fi jógee bëggoo buñ lay fàttaliku di ko tudd bul ànd ak moom yooyu nag am róor mi ngi tàmbali am ci njaboot ko ay nit ñoo xam ne seen yite yëpp adduna ay takkaay ak nag ak doy di ndax li ñuy xintewoo euh, di xolli seenu yaram yokk seeni kawar danaa ko faral di wax nit ñi bu ñu xamoon li ko fi indi danañ xam ne amul solo bi fi colonialiste si ñëwee not nit ñi doomu adama dafa doyee di ba nga xam ne su gisee ku ko yilif day jàpp ne ne kooko mel noonu moo jàpp tubaab bi dañuy ñëw weex seeni kawar gudd ñu daal jàpp ne kon loolu moo di man loolu moo fi indi xeesal indi fi jokku kawar nit ñi di ko tiitaroo di ko taaroo te am ci loo xam ne saa bu nit ki faatoo liy njëkk a tax mooy dindi ko denc ko waaw alal joo xam ne mbokk yi li bari bari boo faatoo kenn waru ko miraas tey nit faatu bàyyi ay takk yu bari ñu naa la euh, cheveux naturel la di lim xaalis bari bu muy jar te ci cadre sariya zéro la mënoo koo jaay jaay boo ko doon miraas kenn du ko miraasaale ndax alal ju kenn sañ te moom la ndax nag ab jullit bu doon doomi kilifa jaadu na ci moom ñu di ko askan loolu dañ jàpp ne yooyu noonu tubaab yi ñoo ci ñoo ñoo ñu ñoo ñu yàpp xeeb ñu ba tax ñuy koy valeur doomu aadama li koy jox valeur du tàggoog moom du ay kawar yu mu jokk du dara xolli du ay wey yu muy soppi li li am solo te am solo mooy nga fexe baax yor melokaan boo xam ne mën ngaa jaxasoo ñëpp fexe ba nag ku la xool ñu ne diw de sa maama buñ la xoolee donte benn jikko. jane woon ci moom am na am nga ci benn waaye am na fii ñun nag ñoo xam ne moom ñu nag suñuy maam moom aw sant ñu boole waaye leen boole wuñ am na ñun ñoo xam ne buñ génnoon fii ne ca portugais ya doo leen xàmmee danaa ko faral di wax nit nga ne ko doom jullit mu mer te lu lay xamal ne jullit nekku ci moom dum solom du nam du jëfinam mbokk yi jigéen ju takk greffage ndax bopp neen xol li ko waram su yokk ay weyam posé ay xixif loolu boo nee ko doomu jullit war mer parce que yooyu du ko def te koo ne doo jullit mu mer da nga xam ne yoon waa ngi nii daal mag ñu baax daal indi nañ yoon wi soxna Maye ngi nii nekk royukaay yi gënoon démb ba àddina tukki it aw turam dafay des saa buñ ko tudd li koo tudd mbaax tudd gën kuy roy nag roy ci loolu leneen lu lool nag nañ bàyyi xel ne ci ay coora la ñuy nekk waaye du ñu jariñ maa ngi jégalu nag di baal àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.